Colonel Malick Cissé maître Abdoulaye Wade ancien chef de l'État euh, annoncé waat na euh, visitam en tout cas ñibbiseem ci réew mi euh, ñibbisi bi est-ce que c'est opportun jamono ji ñu toll. Ah, ndax dana opportun wala opportun wul kooku moom président Abdoulaye Wade moo mën a xam mhm. ndax. lu opportun la ci jamono ji wala opportun lu tax ma wax la ko président Abdoulaye Wade déjà ñëw na ba pare ndax coow lu jib na ba pare nekk naa ak moom mais laps de temps bi ma nekk moom xam naa ci moom un grand grand stratège en politique majeure mm-hmm. il va toujours occuper le terrain politique l'espace politique fi mu nekk moom ñëw na ba pare mi ngi Sénégal. ndax coow laa ngi ne Ablaye Wade dina ñëw ab Wade Ablaye ak lu mën a xew xam na ni moom bu ko defee résultat bi mu soxla dana ko ci am. mais si saxlaat ban résultat la soxla. résultat bi mu soxla mooy nekk fi occuper le terrain médiatique occuper la politique téye ko ci loxoom. fi mu nekk dañ neexul ba neexul mais politique bu Sénégal ba léegi Ablaye Adam ko téye. nu ko téyewee. mu ko téye mooy. saa yu bëggee yëngal réew mi yëngal ko par nii wala par na le mhm. jaxase carte kooku moom yàlla moo ko ko may mhm. te maa ngi doon wax may leen su fekkul woon charge chef d'état bu tegu ci kawam ba mu négligé wàllu politique bi mhm. Abdoulaye Wade ba léegi mi ngi fi mais charge homme d'état gérer un pays gérer l'Afrique gérer beaucoup de choses doo da ngay faagaagal politique bi ba mu bett la comme ni mu naan wax galgal temps yi ñëw galgal ko mu mhm. dem mais xam nga euh, ñu bëri jàpp nañ ne euh, jamono ji bi muy bi muy ñëwee même bu dee euh, dafa wuyu ci stratégie politique ñëw na jamono joo xam ne partem daanaka tas na tasaaroo ñi ña ngay créer ay mouvement ña sa des ña ngay transhumer rawatina jamono joo xam ne doom ji Euh, mi ngi quand euh, fi nga xam ne euh, mooy prison donc ñëwam bi dëgg-dëgg est-ce que mënul gën a garaawal situation partem ak itamit doomam. ah non non non non góor gi xam na kañ lay war a def lu ne. Mm-hmm. il a il la mesure dafa am lu ñuy wax mesure du temps de mm-hmm. l'événement. Mm-hmm. c'est un événementiel. vival ni mu ñëwee ci jamono ji nga xam ni. dañu ne mise en demeure bi jeex na léegi 17 xaw ma ah. lan ñu ngi dugg fi génn fi mu daal di dóor bomb bi gars yi ni taxaw di xoolee. alors qu'est-ce qui va se passer soit on suit sa mouvance. Mm-hmm. bi mu bëgg médiatique. soit nga opposé ko. Mm-hmm. xeer yi naa se xel yi daw problème am. Mm-hmm. bu boobaat lim waroon li war a am am. kon nag li ma ci xalaat parce que ni ma ko gisee de mooy bu fekkoon ne man maa nekk ci direction bi dama naan tekk rek di ko déglu. Mm-hmm. ak lu mën a xew ak lu mën a def. lu mën a yëngal mooy boo nekkoon ci place mm-hmm. foofu moom danañ ci egsi après mais su ba doon moom it damay toog rek. Mm-hmm. di ko seetaan bu fekkee dana ñëw. su fekkee dana ñëw. <laughs> yow de ne ñëw bi gëmoo ko. ah bu fekkee dana ñëw man xam nga ku ma woowul ne ma danaa ñëw mënumaa toog fi naan dangay ñëw. kon kon yow euh, euh, déggoo ci moom dara. woo ah, woo waxtaan moom ci gémmiñam neew ma Malick maa ngi ñëw. Mm-hmm. dégguma ko. te yeneen a am ay contact ak yooyu yëpp normalement. waaw nañuy waxante sama yoon wi nekk Dubaay seet naa ko ba sonn wër ko bu bëgg a dee <laughs> gisuma ko. <laughs> góor gi moom góor gi la rek. mooy góor gi góor gi la rek. Ah, mais mais mais colonel euh, jamono ji xam nga tamit euh, ñi ngi wax lu bare bare euh, ay retrouvailles entre moom ak Macky Sall le président de la République donc retrouvailles yooyu bu dee ne am na. ban camp moo ci gagné camp euh, président Wade wala camp wu président Macky Sall. camp Sénégal moo ciy gagné. Mm-hmm. ndax euh, bu ngeen fàttali ko yàgg naa wax ne man de sama rêve yëpp ma gént mooy ñetti président yiy dund toog bokk añ waxtaane réew mi. Mm-hmm. su ko defee réew mi jëm kanam. bailleur de fonds nasaraan yëpp kii mm-hmm. léegi nag su fekkee ne yàlla dogal na loolu mu am kooku ñoom ñaar ñëpp ciy gañe ak lu mën a xew. Macky Sall Ablaye baayam la. bu góor gi xol bi seddee réew mi dox. man wóor na ma ne Macky jàpp na loolu. Macky Sall wax na ma ne. tudduma xam ne li ñuy wax yaa war a wax ku waxal bu la tax wax loo xamul. mais lii may wax c'est pas un secret d'état. lii may wax luy defar réew mi la président Macky Sall boobu nekkagul président wax na ma ne. doo dégg ci sama gémmiñ mu wax lu ñaaw ci góor gi ndax nag nañ ma bàyyi rek ma dem wuti ba lu ma am lu ma yàlla jox ma xam ni lool la mm. te gis nga ba ñuy tàggoo fii ñaanalante ku nekk dem mm. bu dul woon nit ñi fi jële Idrissa Seck jële ko fi moom Macky Sall kon coow lii du am yëf yi dana dox ndànk parce que Abdoulaye Wade sonnoon na mi ngi doon wut ku ko wuutu mm-hmm. nee na fi ba tàyyi Senghor Abdou Diouf ñoo ma ëpp wërsëg ñoo ma ëpp chance ndax aw ma amoon nañ ma man Ablaye Wade man nag aw ma kenn. Mhm. Idrissa mi yaakaaroon gis nga ni mu demee. Mhm. Macky mi yaakaaroon gis nga ni mu mhm. kon nag bu ñu retrouver woo kooku ku ci nekk dafay gagné. ça n'a rien à avec laspe aspect juridique bi ngeen di dégg tribunaux yi yëngutoog yooyu. kooku moom beneen affaire la. te loolu sax buñ ci excès dinañ ci waxtaan ndax dafa mel ne loolu moo gën. man boo ma taxalee damay bëgg nga yóbbu ma. ñu ma set si. setal sama der. waaw. mais sànq euh, euh, euh, colonel wax nga ne ñi fi ñi fi ñi fi jëlee Idrissa Seck jëlee fi Macky Sall ñoo ñoo dox diggante ñoo ñoo la. ah ñoo ñan la nag laaj naa la ko laaj ko Sénégalais yi ñëpp leen a xam nag. Ah, ñëpp leen xam. papa ñi fi nekkaloon ak Senghor. Hmm. ba Senghor dàq leen wala ñu baleen fi ñu nekk fekk Abdou Diouf ba Abdou Diouf dàq leen wala nekk ak Ablaye ba Ablaye Wade dàq leen wala mu baleen fi ñu daal tëb songu Macky Sall fekk ñi nga xam ni nag ñoo taaloon daay bi diggante président Ablaye Wade ak i nitam ñooñu ba léegi ñu ngi fi. ñi xam ne dañuy dunde coono dañuy dunde féewale ba léegi ñu ngi fi. wax naa woon fii ci benn journal na leen président Abdoulaye Wade était entouré de vautours. gars yi ne ma yow nag ma leen ci vautours yi laa bokk <laughs> dañu bokkul woon lu ñuy lekk. Ah. waaw. ñooñu dañ doon lekk medd man du ma lekk medd. yow la laa <laughs> yàlla suturaal na ma nag. Ah. ba lekkuma fa dara. mètre carré suuf kenn mënul leneen. régime waa du may na ko Malick Cissé mais mais mais mais papa sañ ngaa taxaw ak Sénégalais yi ñëpp dina seetaan nga ni euh, euh, mosoo lekk dara ci président loolu li ma la wax. Hmm. man hmm. ba may ñëw 2000 ak président Abdoulaye Wade dina ma kaay li nga daan defal Abdou Diouf nga defal ma kaay jàppale ma fekk na maa ngi sama teraanga. j'étais commandant second fii ci protection civile. Hmm. yor sama yëpp. ma ñëw président Abdoulaye Wade ma ne ko président dama lay ñaan fële ca méridien mu nekk ci kaw. Bara Cissé général mën na ma seede dama bëggoon directeur du port te dama ko bëgg i jox soldaar yi est-ce que ça t'intéresse ma ne ko président di jéggal ma ndax boroomi nit laa boo ma ko joxee sama nit ñi mere ma bu ma bu ma deen jëlee nga mere ma mu ni kon ma jox la loterie national ma ne ko sama nijaay Abbas Sall daf koy tere mu mer ah non non su fekkee bëggoon liggéey ak ma ne ma ne ko non président dafa ndànk man daal bàyyi ma rek ma nekk atome libre koo ma gis ma ànd ak jëm si ci yow xamal ne du sama njëriñ te du njëriñu ko topp sama ginnaaw sa njëriñ la yow. loolu laa nekk ak Ablaye Wade pendant douze ans man campagne Abdou Diouf contre Ablaye Wade j'ai mis dix millions sur la table ñi sumay mbokk yi mën nañ ma seede. Ablaye Wade contre Abdou Diouf. contre Abdou Diouf 2000. j'étais avec Abdou Diouf je le supportais j'ai mis dix ci campagne am. contre Wade contre Wade. Mm-hmm. Wade bi mu ñëwee j'ai bi plus de 50 millions yu ma moom man pour moom pour mu toog te ñoom defaluñ ma dara man par contre man maa leen defal dara man maa leen dimbale loolu la ma yàlla nattoo. moom président mi ngi may dégg xam na li ma ko wax. mosul may mais quand même mos na jox ay ay maletu xaalis ay ay. benn jour <laughs> maletu xaalis yaa ngi may reeloo sax maletu xaalis de dafa am importation ak exportation. <laughs> jàppal ñaari baat yooyu. lu daan jóge maletu xaalis di dugg ci présidence. Mm. daan naa ko gàddu indi. kon porte de valise nga woon yow porte de valise sens bii. Ah. dugg si ci biir pale ñaari yoon laa mës a porter valise. Mm. mu génn. Mm. benn bi 2007 la. bi ñu jubalee Idriss euh, président Idriss Seck ak président Wade. ba ñu toog ñu war a campagne électorale. Mm-hmm. président Wade jox na ma valise. madame jox ko Idriss Seck. Ah ah yow mi jox nga valise man man man ma ko wax. jox nga jox na la valise jox na ma valise ma dem jox ko pour mu def campagne électorale ma ma après jubóo ba. après jubóo bi xam nga finalement dañu kii après ku nekk. la constitution ne permettait pas a Idrissa Seck de se retirer. mënul woon nekk sinon élection yi dafay mhm. mu def campagne. non campagne. mu def campagne. waaw non campagne campagne rek. Ah, waaw non campagne. jar na walis. dégg beneen valise bi bi ma génnee kooku aussi ci wàllu diine la woon am ñu doon jàng xew-xew bu rëy mhm. ñu jox ma valise dama yóbbul foofu mhm. ma dem yóbbu ko ci boori Saalum yooyu mhm. ñaar yooyu laa ma a génnee valise dégg naa sax un jour ba portugais boobu fi nekkoon Ségura waaw ñu ni man maa doon porteur de valise bi maa ko jox fekk maa nga ci Belgique tëdd sama hôtel bi ma déggee Souleymane Jules Diop wax ko mon ami damaa yónnee sama ticket hôtel ak samay billet d'avion ne leen man di man mi ñuy taxal loolu de maa ngi tëdd Belgique sama mhm. hôtel kon nag xëy na keneen mooy porteur de valise mais nag damaa am bayra mhm. lu jóg rek ñu ni colonel la te yàlla xam na ni colonel du dugg ci yooyu. waaw mais léegi euh, euh, euh, colonel wax nga fi ñaari bomb yoo xam ne dëgg-dëgg bëgg naa bala ñooy jàll ñu ñu ñu ñu ñu lijjanti ko mooy d'abord valise ba mallette ba jox ko Idrissa boobu à peu près ñaata la toll woon ci ci weccet. ah weccit danañ jox Idrissa ko toll na nga di ko jox weccit Abdoulaye du joxe weccit bu lay ah. jox dalay jox lu diis loo xam ne man mi ko yëkkati sax il faut ma am ku ma jàppale non leen loo mais mais mais mais kon comme kon mën nañu jàpp nii comme ça à vue de wala boog au pif benn quelque chose comme euh, autour de un milliard wala yooyu. ah non non non woon. eggul fa waaw du woon du woon campagne bu jar milliard nag ay 500 millions. ah yooyu daal xam naa ne daal bëlis bi diisoon na. sori kon soriwul côté boobu. kalis bëlis bi daal diisoon na. mais léegi ba nga yóbboo euh, euh, kële ko Idrissa kontaan noonu na ba ko jotee. Mm, kontaan parce que boobu temps ñu ngi ci tension boo xam ni. kontaan mm-hmm. mënu foon am ndax gor la aussi ah. toll na ci difficulté boo xam ni fermé nañu compte yi jaxase affaires yi mu war a dem politique te bëgguñu réew mi yàqu loolu rek lañ ko jëlee woon ah. du mm. woon pour leneen comme moom mënul jot ci alalam mais ñu jël ci alal bii xam ni fonds politique la jox ko mu dem mm. liggéey li muy liggéey pour l'intérêt du pays. lañ mm-hmm. ko déggee noonu. Ah, mais mais les papa man fan laa bëgg ñu dellusiwaat fi mooy wax euh, euh, nga sax day junj ñu wax ci sa ci portrait bi euh, nee nga. li nga sa regret bi gën a metti li ngay li ngay rëccu vraiment mooy ni nga wommate Idda Seck dugal ko euh, euh, yët ko bokk bàyyam mboob di président euh, Abdoulaye Wade 2007 dama bëgg rek parce que waaw dama bëgg rek papa nga c'est un regret xam nga may itam je suis un militaire en 2007 mm-hmm. boobu dama guma retraite donc ay mission lañ may jox mm-hmm. et pour man la mission impérative mm-hmm. duma ma ci am état d'âme bu dul woon loolu tey jii Idrissa Seck mën na nekk président ndax doon na yóbbu Ablaye Wade deuxième tour en 2007. yow c'est sa prévision loolu la jox. oui oui oui c'était une évidence. d'après tous les calculs sa amoon na doole boo xam ni nit ñi dañ ko jàpp woon tëj ko yooyu mere nañ mer nañu. Mhm. ba ñëpp dañ naroon ànd ak moom. ah ñu tëdd tëral suñuy plan stratégique waxtaan suñuy waxtaan ci biir seet nu ñu koy def. Mhm. loolu tax may li ma gën a metti ci suma profession mooy loolu ndax kat jullit laa aussi bëgguma daf yenn yoo xam ni sama bàmmeel dama koy layag yàlla. mais mais kon en euh, d'autres mots mën nañu jàpp ne euh, stratégie ngeen tëraloon euh, yow ak président Wade ak ak ñenn ñi mu àndaloon pour xam ngeen ne Idriss Seck bu ngeen ko géré mu yóbbu leen ardo yóbbu leen deuxième tour te bu ngeen demee deuxième tour ngeen lajj. lajj kay complètement waaw kon ngeen ne nañ tëral stratégie woo xale bi boole ko àddina dugal ko pale ñaari mbir rek kay mën a am. waaw mu ñëw ànd ak ñun. Mm-hmm. jàppale ñu ñu gagné. Mm-hmm. wala ñu tëral ko rek rendi ko. te yéen ko tëral rendi ko ah déedéet ah fay ko ñaari façon rek am. <laughs> parce que comme bële amul. <laughs> ah waaw mais moom itam vraiment vraiment contrôle woon Ablaye Wade en 2007. waaw ah, mais mais quand même. il a vraiment. participer collaborer avec le président son père il a fait hein, vraiment. mais quand même même papa lan laa bëggoon nga nga nga ñëw seeg ñun mooy euh, parce que Idrissa Seck dëgg-dëgg euh, sama genre gi ñu bëri dañ jàpp ne dëgg-dëgg xel mee ko wër. qu'il est qu'il est que que c'est un c'est c'est quelqu'un euh, qui a une intelligence phénoménale kon moom papa yow naka nga mën a jaar la ban astuce wala ba keroog sa cimikaay baax. ba nga xam ne ba nga mën a ñëw galgal Idrissa Seck nax ko ni mepp ko yóbbu ko ci ci président Wade te te moom euh, euh, gisul quand même ficelle bu rëy boobu nga nga gis nga ku yeewu dëgg-dëgg da ngay téqataloo sa xel. Mhm. ku yeewu dëgg-dëgg. Mhm. xelama lay daaneel. Mhm. et puis dafa ñoo xam ne xamuñu yenn yi xamuñu fenn xamuñu njuuj daaj xamuñu dugal ak génne quoi. bu ko defee ñooñu pour nga am leen si facile. waa parce que dañuy foog ne kenn du def yooyu. waaw loolu nag mooy mooy alors que. gendarme oo policier wo junni benn loolu rek ay suñu métier nag. teg stratégie mooy seen métier dugal monté fii dugal fii pour avoir le résultat escompté. Mm-hmm. ah waaw bu ñu joxee mission moom. Mm-hmm. mission bi moom se impératif. kon yow mission bi la bi la président joxoon mooy. gérer na fexe na fexe ba jàll ci élection am 2007 bu ko dara gaar. mooy mooy moom président. le président Wade bu ko dara gaar. bu ko dara gaar réussir mission bi réussir mission bi. waaw léegi yow sa xalaat yow élection waaw léegi yow sa xalaat nga xam ne Idrissa Seck kon moo ko mënoon a freiné. ngeen dem gérer jamono yooyu waaw moom lu yuututut di jëm doon ñëw doole jëm mu doon ñëwee bu dalee yoon ci góor gi kenn du ko woon attan kenn du ko attan kenn du ko attan mais léegi papa yow naka nga lan nga euh, lan nga gëmloo Idrissa Seck noo ko noo ko noo ko peegee noonu meeb ko noonu ba yenu ko yóbbu yër ko bàyyi ba euh, ah peeg ak nuñ ko def ak yooyu nag xam nga quand dans une mission moom li ci ëpp moom da nga koy làq moom mm-hmm. nañu wax rek li nga xam ne noonu la nit ñi gis mm-hmm. lu nit ñi xam mm-hmm. ñëpp xam nañ ñu doon naa def réconciliation diggante ab Wade ak Idrissa Seck lijjanti nañu ba 2007 daal Abdoulaye Wade jàll na. Abdoulaye Wade jàll 2007 dina sëg yàqu. mais mais mais daal moo ci mooy loolu. mais léegi nii papa pour ñu jàll ci question boobu léegi euh, euh, euh, nangu nga quand même ne nuuri nga mooy mooy regret bi nga ci nourrir que waa waaw c'est un regret pour moi. Mm-hmm. c'est un regret. du regret sax matériel parce que président Wade nee na ma woon Cissé au départ gëm ko woon. gëmul woon ne suma stratégie dana réussir. mais yow ba nga ñu wax ko gëm ko ma ñëwee mm. pour moom c'est impensable mënul ne. moo indi de sec ci ma ñëw mu ne ma si si tu réussis cette opération dinaa la defal loo xam ni kenn mësu la ko defal ma ne ko loolu nag jafe na ci baax. Mm-hmm. ku ma defal lu ma kenn mësul defal. Mm-hmm. mais d'accord président. Mm-hmm. madame Reine tey lijjanti affaire yi dugg génn ci ci ngor ba ñëw indil ko doomam. <laughs> ñu waxtaan seeni i waxtaan ba ñuy waxtaan man fekke wu ma ko de. fekke wu toogoo ba ñu àndee dugg si ak sëñ Abdou Aziz Junior. ba ba bunt bi xool ma xool ko. Eh. laa génn jël sama billet avion ne fëy. bàyyi fi coow li bàyyi fi coow li dam sama yoon. après ñu woo Alassane Samba Diop <laughs> xam na affaire yi ah, ah, ah xam na affaire yi <laughs> moo fekkee yëpp moo fekk montage ah Samba Diop mii men mii fekkee na lépp. kon eh, yëgoon na dil beeg yooyu yëpp. fekkee na tuuti nag fekkee na quand même bi ñu demee ba war a préparer affaire yi. war ko ah. dugal ci média yi. Mhm. war a yëgle ne président Idrissa Seck nga jóge à e pour ñëw ci saat boobu. c'était à quinze minutes de l'événement. mais mais mais boobu xanaa yow yaa ba tey maître d'œuvre bi. waaw boobu man léegi maa ngi monté kay maa ngi toog di lijjanti di dugal ma mission c'était que mu ñëw a ñëw a ñëw ba jox Ablaye Wade kii caméra yi photo ko. parce que yéen parce que xam ah non non non c'est ah man c'est trop dire. mais c'est ça mooy politique xam nga comme football la quoi. waaw football yenn saa yi nga dribble fii daal di kii waaw dugal penalty penalty la woon penalty. <laughs> non colonel na de parce que penalty euh, boobu fort ah mais da ngay fii noonu lañ dóoree France di France dañ ne dribble dribble rek tey Sénégal bu dóor France. nga c'est invraisemblable loolu nag politique ak football a yam yenn saa yi nga lonk nit bii boo xam ni da koy éliminer waaw mais mais mais mais les man man li ma li ma jaaxal mooy yéen ba ngeen éliminé Idrissa Seck noonu ci ci 2007 ba te looloo ko topp ba léegi euh, ngeen dàbbaliwaat ci législative yi ndaxte législative yi man dee nañ ma ne euh, yéen def exprès woo idi napp ko nax ko xam nga jox ko mission ne ko euh, paayee ñoom ay tanoor ak ñooñu ñooñu euh, kii opposition bi euh, bëlëf bëlëfee leen ba ba ba ba nax leen ba pousse leen ci ci boycotté ñu ñu boycotté législative loolu dégg naa papa yow mii yaa la jëntu lu ni mel. li ma la mën a xamal daal mooy Idriss Seck c'est mon ami c'est mon frère. Mm-hmm. Abdoulaye Wade c'est mon oncle. Mm-hmm. benn njaboot gi la. Mm-hmm. nu ñuy lijjantee ba njaboot gi dox. danañ ko dox ba njaboot gi dox. Mhm. loolu daal moo doon affaire yi présidentiel loolu législative woo boycotté woo. kon dil boobu am na boycott yooyu daal xaw ma nu dil la xaw ma mais am na daal am na lu xew daal am na lu xew. na mu amee nag moom. Mhm. mu am noonu la amee rek jàppal na daal ni mu amee noonu la amee. kon daal dil la. Euh, ni mu amee daal noonu la amee. kon c'était vrai que c'est sa mission c'était politique c'est un grand stratège Idriss. mais yow gën a garaaw. non non gën ma ko ndax moom mi ngi bi moom man du ma. non papa bu yow boo boo xoolee ba léegi nii Idriss Seck euh, ndax xam nga ni 2007 boobu ci la rompre pacte de confiance bu doxoon ci digganteem ak euh, àddina rawatina sénégalais yi boobu ba léegi il du mal a à quand même. avoir oui oui foofu aussi boo déggee ma la j'ai regret. Mm-hmm. mooy bi ñu demee ba woote ba pare président bi journaliste yi wër ko. Mm-hmm. moom moom mu daal di fa wax wax yu garaaw quoi. waaw moom moom président Wade. bay dal ci kaw Idrissa Seck et tout ça là. Hmm. xam nga loolu vraiment mënoon nañ ko gérer autrement. mais xanaa waxoo ko waxtaanoo Seck. non non ma déggloo ma ne bi yëf yi amee laa dugg avion sama yoon. bàyyi fi coow li bàyyi fi coow <laughs> fekk woon ma ko pour pour pour raccorder essayer de polir la pierre yooyu yooyu fekk na man dem naa sama yoon parce que ma mission s'arrêtait là. dugal na ko dugal na daal ñëw na daal ba nuyoon teg papaam. man sama jaan wàcc. seen caméra yi jël ko. photo caméra ko sama jaan wàcc na. ah nga ko mu daan mu daan. ah aw ma woon yéene boobu nag. <laughs> sama yéene daal moo doon président Abdoulaye Wade jàll jàll 2007. waaw mais léegi papa euh, euh, aujourd'hui lan ma sa rapport ak Idrissa Seck. c'est demeure mon ami et mon frère. mais est-ce que moom comprendre na ne. non non non y a yu jàng yooyu. Mm-hmm. amul. Mm-hmm. xam nga moom. seytaane dox na digganteem ak baayam képp ku mën a dox ba jubale leen kooku fayu yàlla ngay am mais xam nga juba boobu c'est factice en fait waaw mais moom wax na fële ci Thiès daan sa baay du ngóor loolu mooy dëgg waaw ah. te nen bu dalee ci kaw xeer am na luy fu tooy fu muy jógee moom xam na ko ñu itam xam nañ ko pour dimbale ko mooy jëlee ko indi ko ci baayam waaw mm-hmm. mais mais yéen yéen soubassement bi quand même c'était pas aussi noble que ça ah non non non euh, bu leen ko jëlee yow côté négatif boobu c'est-à-dire il faut comprendre papa mu ngi fii am lu mu bëgg doom jaa ngi fii mer na buñ ko bàyyee ci mer bi dana xañ baayam li mu bëgg mbokk yi dañuy jóg fexe ba lijjanti loolu ba doom ji ñëw ci baay bi baay bi am li mu bëgg léegi nag doom ji lu koy dal ak yooyu boobu après on, on va le gérer. waaw ah, mais mais mais aujourd'hui papa pour ñu tourner page bi ndax yow li ñu war a laaj bari na euh, aujourd'hui papa d'accord nga euh, que ni euh, Idda Seck ni ko ñëpp jàppee fi mu ne nii moom wax dëgg yàlla bu dee politique am na IPRES moom moom ma raaw ci IPRES su politiciens yi. am <laughs> fàtte ne Abdoulaye di 99. Mm. dañ ne woon jeexal na mu dem toog France toog Europe comme ni Idi def. Mm-hmm. ñëpp ne Idi jeexal na. Mm-hmm. mais bi mu nee tëll un million de personnes ko gunge ba Colobane régime bi fi nekkoon di téye yaakaar naa ne Idi mën na ñëwee noonu de. mën na dellu si fii dégg nga maam ak doole joo xam ni. kenn du ko hmm. attan soo moytu rek mu yóbbul ardo. ah bon ah mais mais léegi foog nga ne euh, quelqu'un comme Karim Wade mi nga xam ne euh, ma nga ca prison ba te jàpp na ne la ko fa dugal la ko ak la ko fa bàyyi euh, mooy bëgg ko xañ mu présenté wu ci élection 2017 yi foog nga ni Karim Wade dëgg-dëgg am na màqaama yóbbu ardo ku mel ne Macky Sall wala mu sonal ko président Macky Sall. date bi dafa jotagul yow 2017 nga wax man ma naan 2019 mu bokk ñu date. pourquoi ngay 2019 foofu fàtt naa la wax. ci ci président Idriss Seck. Mm. bi ma ñibbisee nee naa président Idriss Seck nee na ma du xëccoog président Ablaye Wade mukk 2019 lay présenté wu il va prendre le pouvoir. Mm. mu jaaxal ma ginnaaw 2007 ba xew-xew yi amee ay 2012 ak yooyu ma dégg ko mu ñëw di yëngutu ci politique ma ne ah sama yàqu la bu toogoon ba ni mooy waxante woon 2019 bu ñëwee day jël affaire. 2019 le mot 19 là c' est un chiffre en numérologie bu garaaw. Mhm. waa PDS dañ ko moom téye ko. Mhm. moo tax bu ku ko tudd rek ma ma ma ma ragal ci. Mhm. alors président moom foogoon na ne président Wade. 2012 day defaat 7 ans. waaw mu nekk 2019. mu ñëw jël affaire yi téye toog. mu jox ko moom mu hérité daal affaire bi. mu hérité affaire yi. Eh, eh. Abdoulaye Wade amoon na yéene boobu ah Abdoulaye Wade feebar na ci demu Idrissa Seck. Hmm? comme ni mu feebaree ci demu Macky Sall. Hmm. ah Macky Sall feebar na ko. feebar na ko vraiment il tenait wax nañu 2007 bi président Macky doxalee li muy doxal ba gañeloo ko mun mënuñu xale bii de moom may wut. wax naa ko ko fii ci élection yi ma ne ko président yow wàllu yu nga yaa génne woon sa gémmiñ ne Macky Sall mi nañ ko jàppale moo lay wutu ah yàlla def na ko. Mm-hmm. mënuma yow dañoo bokk xalaat kon. loolu noonu rek la yëf yi mën a. mais yow bi nga wax nii daal. 2019 bi mooy dama yaakaar ne président Macky Sall ma ñu faloon. 4 hmm. avril bii mu def fii ci Colobane mooy première année ñaari hmm. année yële entraînement la chauffage y avait un collège présidentiel moom laay wax collège présidentiel mu on gagne ensemble on gouverne ensemble <laughs> ñamal na leen deux ans dégg nga maam ñu def benn collège présidentiel. yëf yi kenn xamul lu muy nirool Macky nag ne xaaral ma jël samay mbir Macky est victime de sa fidélité mm-hmm. mu ne woon man li may tàggaleeg ñii du jóge ci man yooyu ay ñoom tanoor ak yooyu ñi du jóge ci man léegi nag jot na moom la ñu fal mu jël pouvoir bi doxal ko cinq ans mm-hmm. ba cinq ans boo ko boolee quatorze dix-neuf la mm-hmm. kon nag na commencé ren te war nañu ko kat ci défilé ba ñaari at yëpp défilé wul seetlu waaw ah prise d'armes rek la doon def. Mhm. mais bi mu toogee nag ba mu wër ko ne 2014 jot na. Mhm. téye na nguuram. Mhm. mu ne aywa damay défilé wane sama doole. dégg nga maam doxal sumay pouvoir juróomi at jëmale sa mi 2019. mais mais mais léegi euh, papa ma lu ma jaaxal mooy yow yow yow dafa mel ne président bu ñëw nga ànd ak ah, sama parti man mooy le Sénégal. moi je suis un militaire. dañ daan jaay sunu deret pour la République. suñu yàlla dimbalee ba teggil ñu loolu foog nga ne yenu na maanaa un officier militaire na day opposé le chef de l' état son chef d' mm. te ñu bind ba tàyyi ci suñ li ñu jàngal dissertation que de nga maam nous sommes sous l' autorité du civil. Mm. loolu sama waaye yenuwul maanaam. un militaire n'est jamais dans opposition. donc ku fi nekk toog pouvoir. Mm. présidence bële. ñun président bi la ñuy xool. tu vois j'ai un parti. Mm -hmm. j'étais conseil spécial du président Wade. Mhm. dugguma ci parteem mhm. maa ki ñëw na. Mhm. dugguma ci parteem ñun président bi moo ñu intéressé c'est pas le chef de parti. voilà donc je suis de tous les régimes. mais mais kon papa mu yow yow mën nañu jàpp ne yow daal lambris dorés yi daal. Euh, doo ko bàyyi mu dem papa non non yaa ngi ñëw wala uyu ma. fii may liggéey nii. sama bureau man maay directeur général bi fii. c'est des milliards la ñuy liggéey fii. pourtant béréb dafa ndaw dafa xaw ndaw nii de. ah mais regarde ah. fii ba fële du loolu c'est pas problème de ndaw. Mm-hmm. mais c'est un problème de projet. Mm-hmm. soo xoolee projet bële le pipeline Dakar Bamako. waaw 500 milliards la. Mm-hmm. nguur gi joxuñu ko. maa dem lijjanti ko bitim réew indi ko. projet des hôteliers là 11000 emplois. c'est 239 milliards. Ponte Beach Park. man ak ñoom Baara Gueye Clean Oil ñu ngay lijjanti ay immeubles fii ci nekk leen ba ci kanam da ngeen xool. ay ay mbir yu bare bare bare bare ngi ñëw. Mm-hmm. yoo xam ni je ne dépend pas moi de l'état ñoom ñoo may soxla mais man soxlawu ma leen. Mm-hmm. voilà. waaw mais léegi nii euh, euh, papa comme ni nga waxee yow yow doo opposé ndax militaire nga nguur gu ñëw nga ànd ak moom ndax yow xooloo nit que institution bi ngay xool man man Sénégal laay xool lu may def ba dimbale leen mais xam nga papa loolu tax Sénégal ñëpp jàpp na yow en fait bu ñuy wax transhumant papa yow yaay transhumant bu mag <laughs> transhumant moom baat boobu dafa may reeloo ndax yéen journaliste yéen a dàq transhumé. ah tey yéen a nga journal TFM suba yéen a nga xaw ma SNTV yéen a nga Dunia yéen nga yéen a nga yéen a nga. kon man transhumant transhumant yu mag bu mag. <laughs> boo demee ci footballeur yi tey dañuy bokk ci biir équipe bu subaa keneen ñu jaay leen ñu dem jënd ci beneen équipe dugg fii génn fii mbëru làmb yi écurie bi tout le baat moom il y a deux choses qu'il faut comprendre. Mm-hmm. l'engagement politique. où le militantisme politique mhm. n'existe plus. Mhm. non l'engagement mhm. il y a des convictions matérielles ba ci sunu ñu ñuy diriger ci wàllu politique. matériel donc espèce ci dem ubbi parti. ku ci dem ubbi parti wala ne bëgg a nekk député wala bëgg a nekk lii. yaa ngay seet lan nga ci am. comme weccet. comme conviction matérielle. conviction idéologique. man communiste laa. man libéral la man socialiste la dajale nit nga laaj lan mooy doctrine libérale wala doctrine sociale kenn du la ko ci wax <laughs> man daal ah. da nga naan diwoo ma neex Senghor boo ma neex ma topp mm. Abdoulaye Wade moo ma neex ma topp Macky ma neex ma topp Idrissa bu fa ñooñ jógee nga demaat seet ku la neex. jàpp sa ñaama ah. mais léegi Papa pour pour pour pour dellusiwaat euh, ci ci euh, Karim Wade euh, Karim Wade yow yow seeti nga ko prison. non non non je suis pas allé là-bas. ah parce que j'ai des convictions personnelles parce que sequma ko woon ak moom. ah waaw. Ah. papa est-ce nit mën naa bëgg ginaar bañ ay. Euh, bañ ay nenam dama daan nekk man di liggéeyal baayam. Mm-hmm. dama daan liggéeyal baayam. Mm-hmm. moom liggéeyalu ma ko woon. moom xëy na bu ñu tasee dana xàmmee ne kee mooy colonel Cissé. xàmmee parce que dégg naa ma ñu ne ñu ñu ne moom parce que dafa jàpp ne euh, da xaw doy waar daal. doy waar bu mel na. peut-être dafa ne bon colonel il a beaucoup d'influence euh, euh, ci ci ci président. xam nga ah, ak non non peut man daal loolu. li mu wóor mooy daal miinante wuñu woon. Mhm. daan nañu rombante nii du ñu nuyoonte xamante wuñu boobu no mais c'est vrai. da ngeen daan rombante man je fais mon travail je suis dans bureau jóg dem naa ci bureau président dellu si naa dem naa su ma yoon aw ma kenn affaire. Mm-hmm. ku def loo warul def ma ne président diw def na leen ku def lu baax ma ne def nga lu baax ku def lu bon ma ne def nga lu bon dégg nga. Mm-hmm. donc ñoo il ma voye comme un intrus. Mm-hmm. dans le dispositif. et c'est c'est PDS dafa am lenn loo xam ni mooy seen est-ce que sax défaut la walla. Mm-hmm. conviction la. Mm-hmm. képp ku bokkul ci ñoom. Mm-hmm. bokkuloo waroo bokk ci mbir ah. gi dégg naa ko sax léegi ci APR. dañoo a siis képp ku bokkul ci kii ñu ni bokkoo. c'était ça. man en 2007 2009 euh, bi may dem élection. coow lu nekk dégg naa ko. attaqué nañ ma fu ne. te man fekkoon na ma ne naa dem élection lu ma fa raasale ñëw jox président bi ndax moom laay liggéeyal wax ji jeex. j'ai mis beaucoup d'argent yu ma moom yoo xam ne dama doon président Abdoulaye bu ma jox dërëb man Brahim lamin Ba ñu ngi ñuy combattre te yow la ñuy jàppale kon nag bu ñu jox dërëm ñuy gën a bu ñu booleeg sa parti mhm. bañ demee ba ma gañee yi ma gañee yëpp ma dajale yëpp ñëw ne ko président am laa jël Farba Senghor mhm. man je si fidèle et honnête mhm. laa jël Macky Sall mii mënuma woon jële ci Abdoulaye Wade bien que suma xarit la suma rakk la bi ñu doon wax mu ni ma daal fexeel ba bu ñu nuyoonte sax maak yow ci biir ki ndax yow koo nuyu ñu ne yaa yóbbu ci wàdd mm-hmm. ma ne kon maa ngi toog fi ma toog ma toog ci wàdd ak moom jusqu'à la dernière seconde mm-hmm. kooku je publiquement ñëpp mën nañ seede te tey yi su ma bëggoon ay dara wala yooyu mm-hmm. boobu temps man amoon naa ay pexe amoon naa ay pexe yoo xam ni mënoon naa ko jàppale te bu boobaa moom est-ce que dana ma wóolooti déedéet du ma ko def man man je reste fidèle jusqu'à la dernière seconde. Mhm. mais léegi euh, papa yaa ngi tudd sànq 2009 2009 euh, euh, xam nga ñu bëri jàppoon nañu ne moo naroon nekk vraiment rampe de lancement ci ci ci Karim Wade bu doon bu doon bu doon fekk PDS gagné nañu local yi ak yu mel noonu et que daal ñu gën a seen ñu gën a dëgër daal maintenant yow 2009 boobu naka nga jàngatee si sa xalaat lu tax Pape Diop. PDS pet local ya Pape Diop ci boppam la mu ŋànkoon euh, di maire Dakar gis naa sax léegi na bëgg na ko mu perte ko waaw foofu aussi président Pape Diop euh, entourage am aussi ñoo ko solo ñoo ko lor ci loolu mhm. ñëw naa ay bureau mi yooni yooni yoon ne ko président daal dama lay indil diw dama la indil ay yaa ay di jom dama lay indil ñii ba ci les second couteaux de l'opposition ah, mes jeunes frères mais sama jarbaat yi ñoom Malick Gakou ñoom Barthélémy dama leen di indil fii jàppale leen ñii gaayu garaaw yi rek gaayu garaaw yi mu ne ma ne ko mu ne non non non si c'est moi je maîtrise les commune communes d'arrondissement sur les 19 kon yooyu soxlawul ma ne ko ah bon président ma ne ko nag maa ngi dem mais wóor na ma ne sa directeur de cabinet bi moo lay daaneel parce que xaw ma nag Seydina xaw ma lan ma mu ko daal moo effectivement au résultat j'ai vu j'avais juste kilifa da nga koy wax dëgg mu neex ko ak mu naqari ko tey bu ñu tasantee suñuy bët ñu xoolantee ku nekk respecté moromam depuis sengoor ba tey man ku ma ci xool si bët nga xool ma parce que duma ma la war du ma la nax degré laa lay wax hmm. mais mais na papa wax nga fi léegi lu lu lu lu lu ma lu ma xaw a yéem man eh, nga booy garaaw yooyu te ba léegi ñu ngi garaaw ah eh, Malick mu AFP ak euh, euh, kii Barthélemy Diaz ñooñu wala yow da nga doon bëlëf Pape Diop noonu mais parce que man j'imagine j'imagine mal xale yooyu garaaw la ñu waaw ñoom ñëpp nag Malick Gakou moo leen yilif moo leen yilif Malick c'est un stratège c'est un homme politique bu garaaw a garaaw a garaaw Malick Gakou mii wax na ma bataay de tonton dem leen di dóor yéen élection législative moom ma jëkk a ah dañu leen door sa paa bi ma wedd ko présidentielle mu dañu dóor sa ma léegi bu ñu tasee ma ne ko yow daal loo ma waxati ci politique ma gëm parce que wax nga ma fi ñaari affaire mu mag la fuuf war la ëpp expérience nga gagné ma ci kon nag yaa jamais de deux sans trois. mais waa qu'est-ce que tu entends par euh, euh, Malick Gakou moo téye ñoom ay xaritam lañu ay ñoom wax ne ñoo bokk ASC seen ASC politique ñoo ko bokk. tey ji hmm. bu boo ñu bàyyi leen xel bu baax a baax a su ñu leen bàyyi ko dañuy hmm. jékki-jékki rek. këf langa bi dem seen wa waaw mais ñooñu ñooñ en 2009 euh, kee nekk AFP kii nekk parti socialiste. Wilane euh, nekk fële. service yi Sall xale yooyu yëpp c'est un groupe d'amis. waaw mais mais man xam papa lu ma bëgg a xam foofu mooy mooy groupe d'amis boobu ñooñu déjà. ñoom seen mag ñi seen paa yeeg yooyu seen dirigeant yi matante. ñooñu da waaru de xale yi ñoo yor affaire yi. gos yooyu. gos yi ñoo yor affaire yi de. Mm. ficelle mm. ñoo koy dugal di génne di xëcc di te te ñoom. waaw ñoo naanandoo kafe. ñooy naanandoo kafe. waaw waaw mais papa ñooñu booy yooyu noo doon téye woon yow euh, man man li ma li xaw a jaaxal mooy naka nga mën ne wax Pape Diop na ko goosee yëpp di nga leen di nga indil Pape Diop. ay ay Barthélemy Diaz ay ñoom Wilane ak ay Malick Gakou ñooñu wala wala loolu da nga doon bëlëf la stratégie la dama ne ko mm. xale yi jël leen waxtaan leen mm-hmm. ñu ànd ak yéen booba ni tension bi mel calcio bi mel. Mhm. amul woon bu jëkk mhm. amul woon calcio boobu. ma ne ko woo leen ñu waxtaan mën naa leen indi ñoom ñëpp. mais mënoon nga leen indi mënoon naa leen indi ñu toog waxtaan ndax njëriñ Sénégal moo ñu ñor. te xale yooyu ku ci mel ne Malick il est conscient de ça que d'abord son parti c'est le Sénégal avant quoi que ce soit donc lépp luy defar réew mi da koy def de. man maa ko wax sama jarbaat la. may na ma loolu ci moom. Mhm. mais papa nga foog ne ñooñu boo yooyu boo leen ne woon kaay dem seeti ji Pape Diop à l'époque nga foog ne ñooñu dañuy ndongo ndax seen doom Idrissa Seck dal leen. Ah, mën na nekk nag mën na nekk ku ku robin des. <laughs> ku robin des papa boo lu ñuul daw. non non c'est vrai ah. yooyu aussi dafay am. Mhm. da nga def ay opération yoo xam ni. yow tu sens la peste ku la dafa lay daw. ah mais loolu la mais mais papa est xam nga yow ba léegi am na ñoom ñu bëri ñoo xam ne nii wóoluñu la am na ba léegi dama koy sentir damay toog ba. yàgg ba ne ñii daal daal ñoom ba léegi ñu ngi naan. keroog euh, Souleymane Jules dafa ma woo téléphone bi Mac euh, président Macky def anniversaire am. colonel Cissé mën a wéy mu ni colonel Cissé de Ablaye Wade je <laughs> donc à quel point on m'a étiqueté président Ablaye Wade. Mm-hmm. J'en suis très fier d'avoir servi loyalement et honnêtement une personnalité. non c'est que man man fi ma waxee sax mooy gars yi dañu la xaw a ragal ndax dañu naan colonel daa bëri ay stratégie ay ay système xam nga sa système yu doy waar yooyu yu grave yooyu ngay dóor gars yi xam nga moo tax ñi ni colonel toog ak moom sax erreur la. ah mën na nekk de je ne suis pas colonel pour rien. cest à boo demee ba nekk colonel fi nga xam ni fa la grade armée yam. boo conwee nañu laaj la ko boo conwee kon ñu yàpp armée bi yëpp moom kay nañ ñu bàyyi ak suñuy montage ak suñuy yéegal ak suñu wàcce ay waaw ah, daanaka léegi mu jamono mi fi ñu toll nii réew mi réew ma ko gisee. réew mi ni ma gisee mooy. Hmm. dañu war a liggéey. Hmm. nañu àndandoo liggéey. Hmm. li ñuy xëcc fii tëj fii dugal fii génne fii là c'est pas normal nañu jéem a seet lu ñuy def ba àndandoo. Mm-hmm. dama ne gis nga li ñu lim fii ci milliards yëpp. Mm. suñ ko dajalewoon ba récupérer ko. Mm. benn at la. lañ ciy dund mu jeex. waaw mais justement ci milliards yooyu yaa ngi dégg euh, bu bees bi ñu bi ñu waxal euh, Karim Wade ñu ni euh, fekk nañu 47 milliards ci bi ay compte mi nekk Singapour ak tamit dégg nga tamit révélation yu rëy yu yu yu Cheikh Diallo ma yoroon communication. waaw parce que ñoom defe naa ni milliards nag moom. ñi koy wax ñi daf leen xaw a tiital mm. parce que damaa gis soxna Aïda ñoo ñu ne woon 47 milliards kii ñu ni 47 milliards ñaari chiffres yi xaw a niroo bu ma ne ñii daal seen yaram bi milliards def naa ne dafa këf seen affaire mm. j'ai dit dans benn interview ne il ma semble que ñu daal dañu dul des professionnels libre mm-hmm. ils sont libre libres de leur action et de leur machin libre ah, ni ma ko constaté non j'en doute mm-hmm. parce que boo amee liberté dem ba jàng nekk magistrat am na yenn yoo xam ne doo ci daanu quoi mm-hmm. doo ci daanu non mais je ne pense fii lañ doon wax ne Adja Aïda Diong lii dugg na fi génn fi mhm. te bi nga may wax porteur de valise naroon naa la wax loolu mhm. des valises importées mhm. avant 2007 ma ànd na ak moom ñu def waxande wu 10 ay centaine de millions ñëw jàppalee ko président Ablaye waat mu ne ko nag dimbale ma président bu ko kenn yëg ñaari yoon ñetti yoon mu am dëj yaraax président Ablaye Wade dem fa ci mbaaxam nit ñi wax muy leen hé déglu leen kii toog ay yoon yooni yoon ñëw na sama bureau indil ma loo xam ne bu mu leen ko waxee dafay tiit te neen woon bu ma ko wax sax mais tey danaa ko wax kon bi muy am ay milliards yàgg na man sama je me rappelle mm-hmm. à deux reprises président Abdoulaye Wade wax ne Abdoulaye Diop fay leen ko xaalis bi nga xam ne ci Abdou Diouf la ko liggéey moo ko liggéey le papiers sont là tout le monde a avisé fay leen ko xaalis mm-hmm. bañ ko fayee xaalisam la am ngoru ne comme kii lijjanti na bañ fay ma sama xaalis boo xam ne maa ko ñaxoon naa si jël li jox ko pour mu appuyer ko en politique. tey bu ma déggee ñu naan fii daf may jaaxal quoi ah lu ma bett la ba lu ma bett ndax man daal xamal ko ba tàyyi ne. vraiment daan na liggéey ba Burkina Faso ba Tchad loolu yëpp xamal naa ko. Mhm. Mhm. mais mais léegi nii euh, euh, papa en tout cas euh, affaire affaire yi moom kenn xamul fan la fan la fan la jëm ndax bés bu yaa sañ tudd kii tudd kële man daal li wax. Mhm. wax naa la ko sànq ma ne su ma sañoon. coow li jóg xam nga lu tax. ndamu Sénégal moo ñu ñor. ñi ngi woo ab ñi ngi woo àddina bi yëpp ci francophonie en novembre na leen ñëw leen mais xanaa du ñu ñëw fekk Sénégal di xiiroog di ŋaayoog di xeex di xuloo te man wóor na ma ne suñu continuer ci lancé bi waxuma ne francophonie du am de mais dana am ci condition yu metti li ngay wax stratège man j'ai cette vision le PDS n'acceptera jamais nit ñi di nekk fii di francophonie di noosa yooyu ñu jàpp seen i tëj ci kaso bi ñetti xaaf yi ma daan wax xeer yi xale yi xel yi dañ dellusiwaat fi te bu boobaa francophone du am dara jaru ko ndamul Sénégal boobu ñu yàq ko dara jaru ko moo tax woote naa nee naa président Abdou Diouf sa mission la yaa ngi jeexal francophonie fexeel ba bu mu yàqu sa loxo Sénégal yàqu sa loxo dajaleen ñaar ñi ngeen waxtaan yéen ñett ngeen toog bokk añ réew mi dox ñëpp ñëpp ñëpp kontaan. te lu ñu mën la. man c'est pourquoi je dis que ces traques et tout nañ ko teg fële di côté quoi. ñu bàyyi traqué bi mais mais léegi papa ndax fi ñu toll nii mooy taf-taf la ndax temps baa ngi dem yow local yi euh, c'est c'est c'est c'est pour bientôt bu dee toxaluñu ko euh, sa parti papa sa parti bi nag sa parti sa parti bi xaw na ndaw de man tur bi sax dama koy fàtte parti bi <laughs> tur bi nan la ah, parti parti lan du Sénégal parti pour la solidarité et le développement du Sénégal. c'est tamit dëgg-dëgg. suñu PSDS non ah. peut-être que da nga nekkul ci politique. wala da nga ci duggul. yàlla seede ne na. Hmm. madame Kourakan mi nekk coordonnatrice bi. Hmm. léegi dootul nelaw ba minuit. Hmm. ay nit di daw rek di ñëw di jël si récépissé partie bi. di dem ndax 2009. li ngay wax stratégiment ce que j'avais dit xamoon naa ni vote sanction yi dana bari. ma ne suma gars yi militants yi fexe leen ba bu leen dàq kenn. ku ñëw dugal leen seen liste. loolu <laughs> laa gañee Godom. loolu laa gañee Kër Samba Kane ak Khalifa loolu laa gañee euh, Jandeer ak Alsane Ndoye et cetera et cetera mm-hmm. donc c'est une stratégie qui va se répéter remake Hmm. oui dañ koy defaat. ah ah euh, kon yow 2014 2014 da nga dem local yi. boo demee Saint-Louis gaa yaa ngi fay fees dëkk ba boo demee Abdou Abdou Bakary Sarr le président des mutuelles de machin ci sama parti la bokk ma nga Thiès da ma doon deuxième à Thiès. 2009 hmm. bu ñu teeloon a ñëw ñun ñoo gën a Mm. mais comme man pour man folo woon rek c'est la politique c'est le match du dimanche bu lëndee nga liggéey <laughs> loolu dañ ko jële woon amuñ ci woon fulla <laughs> dafa yafaloon mais am na ñu capacité gagné lu ñu neex Dakar gii mm. buñ ci jógoon ma taf affaire yi le colonel maire de dakaar mm. léegi nga gis mu bari militant jël bi mais léegi nag erreur bi gars yi daf foogoon ne moo gën mooy bi ñuy indee communalisation bi nii dindi ville bi pour rey Khalifa Sall affaire waaw pour affaiblir ko mais dama ragal ne gagné Grand Yoff de moo war a gën a yomb gagné Dakar. ah. ah ci li ma yaakaar. bu mënul ah. gagné bu mënul gagné <laughs> Grand Yoff am ngay. waaw mais mais foofu. mais foofu papa mi ngi defanteeg Mimi Touré Mimi Touré tamit. ah bien que sax temps yi xam naa ni. dëgg li ma wóor daal mooy. Ah. ci gars yi jógul. Hmm. dana leen def lu metti moom Khalifa. Grand Yoff fa la juddoo fa la hmm. mais gars yi dañuy tëb di coow moom mu ngi ne pat. Hmm. moytul jaan jaan nañ ko moytu. bu lay matt doo ko yëg. ah te moom te moom dafa pataaral quand même. moytul ku ne pat. Mhm. ñun ñu bari coow ñu duñu dañuy wax nii rek mais ñu garaab ñu dañ naan pat buñ la ne cappee rek c'est fini. Euh, kenn du ko lugg. mais mais Baba gisee euh, coowal Mimi Touré euh, président Macky Sall sàll naan kii wuñu. loolu fi la fi la fi mas nekk fu lañ ko fekk. fi lañ koy bàyyi. fi lañ bàyyi dama lay wax ca Ngalandu. Mm. ca Blaise Diagne. ca Ablaye Wade. Mm. ñépp daal noonu la yëf yi tegloo rek. tegloo tegloo da ngay fàtte Abdou Diouf Habib Thiam. Mm-hmm. machin Moustapha Niass dóorante fii. premier ministre non non mm-hmm. fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi. kenn kemuñ si dara. ah mën nañ ci dara ndax président Macky moom lañ fal. Mm-hmm. saa yu ko neexee fal ku ko neex dindi ku ko neex. lépp ba ñaar question laa jeexalee. Euh, Benno Bokk Yaakaar. Euh, baat boobu bëgguma ko dégg. ndax lan. Benno bokkuñu yaakaar. Mm. bokkuñu yaakaar. ndax. ku nekk ngi wutal sa bopp. kon nag bu ñu wax bennoo bokk yaakaar ba non bu c'est faux bennoo bokkuñu yaakaar la. Mm-hmm. Eh, comme nag xaw ma loolu bëgg laaj. mais baat boobu nga wax neen bennoo bokkuñu yaakaar ba pare. waaw benn bennoo bokkuñu yaakaar. ok waaye dañu ko tas parce que. mooy tas mooy tas boppam. waaw mais mais mais tamit c'est vrai aussi que gis naa euh, Tourbalaay Faté dafa naa e mooy mooy bu ñoom euh, euh, sama xarit ma ngi nuyu Maître Ousmane Euh, euh, euh, donc jiite nga xam ne ñëpp laa fa gis ba mu des yow ah gis naa fa Euh, euh, ay ñoom. non daf ma fekkoon ma voyager ah mais sinon kon ci laa bokk mais dama ne Ousmane. maa ngi dem Dubaï madame Kourakan dana ñëw remplacer ma foofu. ah kon kon yaa ngi ci c'était pas pour les locales ah. non non non. waa léegi euh, kon yow gis nga ne coalition ay Benno Bokk Yaakaar si ay CPE nangam ay Macky 2012 nga xam ne pour defe naa sax ñoom xaru nañu donc yooyu yëpp est-ce que rek mënuñoo prononcer benn yoon rek seen oraison funèbre ñu gars yi am jàmm. non attends bul parce que Macky 2012 président Macky Sall lay jàppale. da nga naan ñeneen ñi nga xam ne bokkuñu yaakaar yor seen i parti Macky duufal parti yooyu. ndax ah duufal na ko duufal na parti yooyu. dëgg la parti yu deewoon na ba pare mu ñëw dégg nga maam di leen fay dégg maam di leen duufal. Mhm. jox leen ay ministère mhm. pour man. erreur la c'est une erreur euh, stratégique. Mhm. parce que son honnêteté. dama wax sax son honnêteté juvénile. bu doon paa yi mel na ñun. dañuy ànd a gars yi gagné nañ ba pare du ñu am fidélité boobu de comme disait Houphouët-Boigny c'est l'ennemi de la politique dañ leen di wéex tëf jàll. oui. papa moom nag muy fidèle. papa pas d'accord kan papa ma ma ma ma bamtu ko la fidélité est l'ennemi de la politique ça c'est pas moi c'est Oufiane Boigny. <laughs> mais yow euh, tu fais cette. non je j'en fais de fidélité en politique. Hmm. ça quoi. Hmm. ce sont des engagements que lañ doon wax fii wax waxeet may leen déedéet. Hmm. je retire ma parole c'est un mot man kay mën naa wax ni tey ma xam ni stratégie bi du sotti. ma changé de démarche je clignote comme ça à droite je tourne à gauche. <laughs> Eh, léegi papa kon yow yow place sama euh, papa bi ma yar. dafa ma doon wax ma ne ko papa Mamadou Diop mii nekk fi nekk maire de Dakar am lu nekk yow nga topp Lamine Diack mii rek moo xam ni amul dara mënul lu la dara. Hmm. moo doon moo doon chef de quartier cité chemin de fer ni yàlla yërëm mm-hmm, mm-hmm. mun waa Malick mais man maag bàyyi ma ne woon mënu ma ko ba mm-hmm. xam nga loolu <laughs> c'est pas de la politique ça ah. <laughs> que kóllëre la ah. politique beneen affaire la ah, mais les papa yow yow boo nekkoon ci place euh, président Macky Sall kon da ngay kat ji ñëef la <laughs> président bu seen yéen ant woon moom du nekk comme ni ma si ñëpp laa doon dëgg la ñii kon premier tour ñooy toog nekk président yàlla dogal na xale bi rëcc na leen am 26 pour cent ba dem amatuñu woon pexe. ñu ànd gunge ko pour wàccee wàdd gunge nañ ko pour wàccee wàdd. Mm. ah may na ñii directeur fii may ñii fii kii. ma ne ah gars yi kon nag léegi da ngay bàyyi nag comme man la Sénégal fay te bu subaa maay rendre compte. Mm. bàyyi leen ma dem. Mm. ñu waxtaan suñu waxtaan njëkk bu ci wala sax ku nekk ma tuuf la dara ne la merci dam leen yëngatu seen parti ngeen bàyyi ma liggéey. léegi bu ñu dëgëree bopp. bu ñu dëgëree gàllankoor ma kàjj leen. <laughs> am na <laughs> am na loo xam ne waxuñu ko sama jumaa ji sama jumaa ji fex ma fàtte <laughs> non su jumaa si ñëw léegi su jumaa ji dinaa si ñëw léegi papa. <laughs> papa daa ñëw su jumaa ji léegi. aj gi laa leen di def. sëñ bi di. c'est que président Mbacké nag dafa am yeneen feemam. xam naa ni ah, am na yeneen feemam. xëy na du leen kat ji nii mais am na nu muy def ba dirib leen galgal fi comme disait Paa Abdoulaye Wade damay galgal gaa yi rek doon leen bon. bu doon wax dama lay kat ji rek na. Ah, ci li yóbbu nañ ko génnee nañ ko réew mi président Moussa Niass jébbalu na Tanor xamul ci li mu nekk nga déjà boobu stratégie moo gën li mu nekk taxal na leen ci <laughs> taxal na leen dooy moo nekk feeri yuuxu LD ñu ne ko mu weer di gaal daw taxaw kon xam nga ni booy bi mooy moytu leen ko ku garaaw la garaaw la papa Landing Savané nag Landing men dégg naa delloo nañ ko jox nañ ko parti mu boole ci authentique authentique waaw ndeysaan c'est que moom nag <laughs> moom daal sama waay la du ma ko dal quoi. Landing moom non vraiment boobu bële kenn dégg eh, ko. laajul dara bëggul dara mu ngi toog. bëgg na dara kenn kaa faalewul ah, moo tax noonu heureusement pour lui. Hmm. bu songoon dugg ci affaire yi dañ koy museler du wax. pourquoi ces communistes là kenn mënu leen teree wax mon ami dans ce côté fu mu doon wax mais si c'est tu sais je peux pas me <laughs> mais si je me tais <laughs> ma ne ko kon nag waxal ba dee voilà waxal ba <laughs> te tamit aussi euh, euh, euh, président Macky Sall maîtrise kii na neutralisé na waa PDS ñoom talatuñu dara ñoom ak ak traque bi feem la tamit non mais nag attention muus boo koy bëgg a dugal ci teen mën na laa gajji foofu lañ gën a grave de dégg loolu li ma wax sànq ci francophonie dañ ah. def attention tu as beau pousser muus mi dàq muus mi mais bu gestoo beneen nga dem sa attention. attention papa solution jeex na affaire na leen tardé na leen mais quand même. non xam nga laa mënul muñ maa ngi bu doon boo déggee place bi da nga kii di. dama leen kaj gi kaj gi laa leen def oui non mais c'est là on est en politique. kaji paa yi carrément. on est en politique. pas de masla. amul masla. nii de sentiment nii de yërmande. surtout ñi ngay masla mooy ñi bëggoon jël sa place ngeen xëccoo nga gañe leen. ñu euh, bañu démb. Mm. du nekk mu sax waaw ba pexe ma jeex. papa sa émission jeex na tàggatoo. ah man nag bëggoon naa nag. nu dee si ñëw. Euh, boobu ñu góone ko affaire bi dafa gàtt. non non gis nga ko mais non mais damay defaat dafay gàtt ci woon quoi bu ñu mujjee def c'était en 2012. waaw 2012 yooyu ci biir 2012. tamit yow bëgg naa yow moom. papa ndax yow ah, man de dëgg rek laay wax. waaw ah, bañ ma xam nga rek yow dafa am loo xamul. Ah. bu ñu nee Malick Cissé gis nga boo paase sa bande annonce bi ba ne journaliste yi. Ah. ñu bari dañ naan pat pat pat pat ndax comme du ñu naan def lu jub dañ naan wax naa toj toj ci ñoom te du ma ko def. <laughs> non ba pare <laughs> du ma toj toj non non. non ba pare lu tax neex ma mooy yow saa ñu defee émission. Euh, en fait yow boîte de Pandore nga xaw a <laughs> de Pandore yow yow bu ñu demee kii rek nga nga nga dóor benn. bee paase la ay buzz yoo xam ne ah, da ngay waar quoi bee paase franc sax nga ma mayoon. waaye gars yi dal ah léegi bii bii nii tamit nga mais bii moom. bii ban laa la dóor nii. non bii yow dóor nga ma kii bii dóor nga ma Idda Seck bi.

Papa tàggatoo sa émission jeex na. ah xanaa di sant nit ñi di leen gërëm gërëm ñëpp ñi nga xam ni ñu ngi ñuy seetaan. Mm-hmm. fàtte naa nag loo xam ni dama ne woon il faut ma wax ko ba nit ñi xam ko. Mm-hmm. mooy sama diggante ak président Abdoulaye wàdd lu tax ma di ko sant di ko gërëm. Mm-hmm. du lu mu ma defal ci wàllu saayir mais lu mu ma defal ci wàllu baatin la. ndax tey jii jumaa jee ñuy tabax. awani Cheikh Ahmadou Bamba mm-hmm. ci suma xalaat la jóge moom mu validé ko mm-hmm. bañ jël ko jox ko murid am na solo trop man kay bu ma neexoon bañ jullee ti sax mm-hmm. ku fa julli léegi am naa ci sa julli dara bu ma leen cumulé j'ai beaucoup de donc ku ma la defal loolu war nga di ko sant foo toll ci sa dund ak ci sa àlla la ndax am na fit keroog bi ma ñëwee ñuy xëccoo suufu jumaa ji naari ñëw suma kër guddi 23 heures ma woo ko mu ne ma ñëwal ma ñëw ma ne ko président affaire jumaa ji laa lay doyee mu mer ne mu waaye mais mënu woon xaar suba mhm. ma ne ko déedéet ndax bu dara tóoroo suba wala tey ci guddi wala feeg téeméeri at yaay responsable mhm. mais président man bala may ñëw di la indil problème dama lay indil solution mhm. gis naa suuf su baax soo xam ne boo ko la joxee dana moo gën fay ñi xëccoo wax ko ko ak na ma samay montek samay këlëb këlëb rek say feem samay feem ci guddi gi la jël téléphone am woo directeur des impôts et domaines mhm. laaj ko mbir suuf bi mu ne ko kii dañoo ñoom Maja Diop lañ ko joxoon CNTS keroog paa bi dafa mer bi ko waa ji nekk ça appartient à la CNTS mu ne ko c'est pas vrai ça appartient à l'État nangu ko jox ko ñëleet foofu rek la naa fi problème bu ngand xam nga li donc na euh, ko ci sant di ko ci gërëm. ndax man lépp lu jëm ci diine rek daf ma ñor. ndax xam nga yow sama appartenance xam naa waaw bu baax sama baax da ma ci bëgg sa soxna si sama sama jabar la ah, kaa njaam bi mu toogoon samedi ñëwloo. walaay <laughs> euh, non non nee ko boo à laa koy dóoral non papa vraiment je te remercie maa man maa leen di remercier mhm. pour euh, ngeen may ma opportunité ma wax li nga xam ni mooy dafa réew mi mhm. Mm, dëgg la moom sant leen ci gërëm leen ci. Mm-hmm, ngay dox. ci ngay <laughs> suba ak ngoon. <laughs> Ah, yaa ngi sama ci laa dëgg la papa ñu ngi lay remercier bu baax a baax. Euh, euh, ci rajo euh, bi yow moom saa bu ñu toogee yow rek dëgg yàlla di ci am yu baax a baax a baax ndax yow yu baax rek ngay joxe macha allah ba tax na daal Sénégal moom namm nañ la te nag moom comme Sénégal ku ñu rek man ma jiital caméra yi. ak sama xale yu baax yi ñëw tàllal la ko dëpp la ko coono bi ñu def ba yéeg ba fii gis nga man mii sax gisoo tey moo tax dama ko xamoo te gisoo tey fu ma génn mm. ay carax laa génn tey ndax <laughs> xam ne apata laa tey moom la moom ñetti étage moom dëgg fa yàlla moom moom sama yaa damaa soxla su ma su ma su ma fi génnee àddina moom day ëpp <laughs> ñu lay jaajëfal papa di jaajëfal bu baax nag euh, euh, sama xale yi may àndal ak sama doom ji ma jaakaar lool Jatu Njaay ak nag euh, Aliou Niang mii laay laay laay Maktar ak Mamadou Dia xaw ma fu mu réer moom Mamadou Mamadou nekk ba ma yàq sa der anamu ana Mamadou Dia waaw ma nga ne di nelaw di xarang <laughs> Mamadou Dia sa xarang yëpp fees nañ ci émission bi ah, di di di di di nuyu maas euh, maas ma seer mi Mor xar ma yàkkamti naa la lool xaw ma foo féete euh, di nuyu nag bu baax a baax nag euh, la grande diva kookoy Adja Diallo mooy monté émission bi mais dama fàtte sama partenaire